mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci fasante ko lu rek écouté gi ci tànn gi su FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ceeg suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu jot na ca suluf moo jotit ca Medina Cheikh ca Ndar bi simila ci xibaar yi Euh, li ci gën a fës euh, daal dina ci rek euh, bokk ab détenu bu daal di faatu ca maison correction bu Diourbel la ko daal di nag soob ne ñu moor naturel la ay way juróom daal nañ ci indi ay leeral dinañ ci dikk ci ndorteelu xibaar yi boobu jamono Sénégal daal di nag enregistré fukk ak juróom ñetti ñi daal di faatu ci Covid 19 bi euh, sànq ci diggu bëccëg gi am na keneen gu ca bakkanam daal di nag euh, rot dinañ ci daal di nag dikk euh, ba tey ci kanam ca hôpital principal faatoo dinañu jukki itam jikki feebar bi ak anam ba muy lawe ci yenn ci ay diwaan yi ci mim réew Linguère dinañ fa daal di dem ñaar fukk ak juróom benn ci ay nit yi ñu daal di mettre quarantaine jamono ji ñu ngi leen di daal di saytu gannaaw ka positif bañ fa daal di nemmeeku dinañ ci jukki ci kanam tuuti plan bi nga xam ne moom la ñu daal di teg ngir daal di dooraat lii di njàng mi ci ñi war a def l'examen ñaari fan ci weeru juin ñu daal di koy dooraat ci loolee nag inspection d'académie bu ndakaaru la mu daal di nag def xayma nee na juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn l'école ak i établissement public ak privé eh, war nañ leen daal di nag ubbi ak yeneen fukk ak juróom benn ci ay école formation eh, professionnelle ba tax mu jàpp ne yëpp faaw ñu daal di koy désinfecté liggéey ba ca aju ñu daal di koy amal amal nañu ak ndaje gouverneur bi dinañ ko teewlu ci biir xibaar yi moom inspectrice d'académie bi eh, ci jokkoom ak Amadou Moustapha lay doon gannaaw nag ba ñu woyofalee li aju ci wàllu nag Euh, matuwaay yi ngir daal di xeex jàngoro Covid 19 transporteurs yi nag nee ñu bëri nee ñu euh, boolewuñu leen ci dogal yi ñu mujje nag jël liberté 6 daanaka li ni mel la ñu daal di xamle woy tataay nag ña cay liggéey jamono jii nee ñu ay jafe-jafe yu tar la ñu daal di am dem ba ci sax ñàkk feeku weer nañ ci daal di jukki ci kanam tuuti lay doon jeexital yi mu am ci yeneen i secteurs itam euh, nañ ci daal di nag addu ba séddale li aju nag ci wàllu dund gi ñu duppee aide alimentaire d'urgence na mu daal di tëddee foofu ca diwaanu nag Matam ministre bu ñu dénk wàll wi dem na fa waaye ci ñetti département yi ñaar ya nee ñu euh, matale gu ñu Abdourahmane Diène dina ci daal di jukki dinañ ci toftal yeneen i xibaar waajtaayu nag euh, korite gi ak naka la ko askan wi di dundee ak sociétal yi buñ ca noppeew bi antenne bi ci wax sa xalaat lay doon Alioune Badara Socé moo ne ci sottandikukaay bi faram-fàcce gi nees lay doon. Adama Ndione euh, ci kàddu gi ñu daal di koy nag euh, dooree ak détenu bi nga xam ne nag dafa faatu ca maison d'arrêt correction bu Diourbel euh, ñuy wax ne dak dafa daal di amalap mort naturel maanaam faatu boo xam ne du dara lu ko daal di nag dab waaye nag ay waajuram ñu ngi ciy indi ay leeral ne daal feebaru tétanos la amoon moo tax mu daal di nag faatu ba jamono ji sax lii di eh, niiwam mu nga ca morgue bu hôpital Heinrich Lubbe bu Diourbel ngir daal di xaarandi ñu daal di def li nga autopsie bi keneen ku daal di faatu bi yoon ci wàllu coronavirus bi la euh, sànq lañ ko daal di enregistré mu yóbbu lim gi ba ci ñaar fukk ak juróom-ñett ñi daal di faatu ci euh, feebar boobu boobule mu nekk nag ab waay bu amee lu war a toll ci juróom-benn fukki at mu dëkkoon foofe ca Tiwaawoon euh, moom nag faatu na tey ji bu benn waxtu jote ci diggu bëccëg bi ca hôpital principal bu Ndakaaru desandeek feebar boobu ak law gi muy law Linguère foofu ñaar fukk ak juróom nit daanaka Euh, dañ leen daal di def quarantaine ngir daal di rek certifié euh, ñuy xool ndax amee nañu feebar bi waaw wala déet ndax cas positif ba mu daal di euh, ba ñu daal di gis ci seen nag biir ca département ba boobule ne ñu nag transmission communautaire la ko waa ji daal di nag amee kenn xamul fa mu ko daal di nag jóglee ñu sukkandikoo ci médecin chef bu région ba di Cheikh bu Senghor nee na fanweer ak ñaar ci ay ka daanaka dajale nañ ko ne ñu fanweer yi ak benn yi ay patients yoo xam ñu daal di nag euh, wér Goudiri itam li ni mel fa daal di nemmeeku département ba nee ñu dafa daal di nag euh, vert ndax foyer bi nga xam ne moom la coronavirus bi amee woon foofu daal nañ koy fay euh, gouverneur Oumar gouverneur Oumar Mamadou Balde moom mi jiite comité bi taxaw wàllu nag mbas mi foofee di ci yëkkati ay kàddu ñu déglu ko Babacar Boubacar Tamba. am nañu mbégte pour annoncer fii ci région de Tambacounda que xeex bi ñu doon xeex Goudiri yàlla may nañ ci ndam 63 personnes ñoo constitué woon cohorte bi 62 yëpp wér nañu depuis avantière ba dellu 63e bi également dina mun a en tout cas am certificat am tey bootul suba ñu mun ko delloo donc le département de Goudiri est éteint en terme de contamination ci première vague bi ñoo ngi ñaan suñu borom nag mu jàppale waaye li mu njëkkoon teg comme nattu nangu nañ ko résilient nañu ba aujourd'hui mënuñu comptabiliser benn cas de euh, coronavirus positif dans le département de Goudiri yéen ñi ko doon teg rouge maa ngi leen di ñaan à partir de demain nañu teg département de Goudiri comme vert et ñu dese léegi coup bi ñu amoon fii ci Tamba boobu it ñu ngi ciy xeex bu baax loolu nag bu amee forcément sant dafa war ki ñuy njëkk sant mooy son excellence monsieur le président de la république daf ñu apporte soutien bi nga xam ne constant ci lutte bi et en tant que président ma seede ko ministre de la santé ak ministre de l'intérieur à aucun moment bàyyiwuñu Tamba ci xeex bi donc ñooñu ci turu acteurs yépp ñoo ngi leen di sant di leen félicité di leen remercier di leen wax résultat baa ngi nii mënuma également jeexal lu mel noonu te waxuma ñi ci taxaw te ñu xam leen premier bi mooy acteurs départementaux ñi nekk Goudiry yépp sous l'autorité du préfet di sant personnel de santé bi mënuma ko terminer aussi sans vraiment wax suñu mbégte ci force de défense et de sécurité dañoo nekk un instrument extrêmement important ci mise en œuvre suñuy mesure donc opérationnalisation bi gendarmerie moo ñu ko defal ñu ngi leen di sant au nom du ministre des forces armées mais également au nom des acteurs régionaux. Ah, ñu daal di desandi ca barab boobu ak ñeenti cas yi nga xam ne daal nañ koy rek amee ba ñu ne sax ab agent administratif bu centre hospitalier régional ba daal di na koy rek euh, jël jàppale nag jot nañ ko ndax direction bu SICAP ñoo fa daal di taxaw ñiy liggéey ci wàllu nag wér yaram bi Boubacar Tamba. commune Tambacounda am na yeneen i ñeenti nit ya amee jàngoroy coronavirus ñu ràññee ci benn agent administratif wu l'hôpital régional ba looloo waxal altine ji Mamadou Kassé di directeur général u SICAP président wu kuréel bii di Ankaouli nekk itamit conseiller municipal ak conseil départemental doon na maye waa comité régional de gestion des épidémies téeméer ak fukki combinaison yu mucc ayib ngir aar liggéeykatu l'hôpital jooje Idrissa Lay moo yoxe woon kaddu. mbir mi mu ngi fiy jéggi daayo ba am na suñu yenn naataangoor nga xam ne ne médecin yi am na ñoo xam ne ñu ngi leen di commencé dal donc mu xalaatoon na woon jël lu toll ci téeméer ak combinaison fukk yoo xam ne ne jablal na ko teg ko ci loxo gouverneur mi nga xam ne ne moom mooy pilote mbir yi pour mu jébbal ko waa personnelu santé bi mais du ñu yem ci loolu ndax incha allah fii ay fan ñu defaat beneen gest bu am envergure incha allah waa radiothérapie bi dinañ leen indil ay appareils yoo xam ne ne pour ñu gën leen mën a yombalal seen liggéey di ñaan yàlla tamit ñi nga xam ne mbas mi dal na leen yàlla na yàlla fëgg seen bopp ba ñu wér di ñaan yàlla ñi nga xam ne tamit jotuñu ko yàlla nañu ko fi yàlla dàqal di leen ne nag ne Mamadou Kassé nee na nag bu sañoon di yàlla de ah mbas mi jeex mais tant que mbas mi jeexul xalaatam ak lépp Tambacounda la lu mu am dina ko fi jëmbal ci kattanu ku tedd ki. directrice su l'hôpital ba rotal ci yi kaddu. te loolu dugguleet parce que monsieur Kassé yàgg na di ko def day yëngu toujours di seet lu mu ñu mën a jàppale dans ce sens donc lu ñu def lu dul gërëm ko di ko sant ci euh, ci bi te geste bi vient à son heure. Oumar Mamadou Baldé di gouverneur diwaan ba di ko rafet. maam aussi pour séddee séddee boo xam ne euh, ci yàlla lañ ko teg. du tey la commencé accompagner xeex bi fii ci Tambacounda lépp li mu ci mënoon def def na ko donc yéen ñii ñëw pour moom ngeen ne ko kontaan nañu apprécier nañu véritablement accompagnement bi muy defal région am à travers les structures de santé yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di faj euh, ñun ñëpp suñuy mbokk. ba fi mbas mii di coronavirus dugeeg léegi bii mooy ñeenteel yoon Mamadou Kassé ak waa ANCAR di indil askanu Tambacounda seen ndimbal. Boubacar Tambadonte Doko fii ci Tambacounda xaju si dara. jaajëfal ko Boubacar ñu daal di dikki ci tontu bi nga xam ne nag institut Pasteur daal na koy rek indi ci yenn ci ay xibaar yi daal di nag rot jëmee ci moom ne dafa am yenn ci résultat yi nga xam ne daanaka dafa daal di woro mu daal di koy nag def ci personnel boo xam ne ci wàllu santé dañuy liggéey foofu ca hôpital euh, bu euh, Fann ñoom nag di fàttali ne seen euh, institut boobu la utilité publique la kon amul lenn loo xam ne wàllu wutum xaalis daf ko daal di nag lal ci nag li nga xam ne indi nag ko ci leeral contribution bu def ci wàllu nag. xeex bi mu jàpp ne test yi nga xam ne mu ngi koy daal di nag def daf ciy liggéey ak ministère santé ba prélèvement bu ñuy daal di def dañ koy booleek ay fiche renseignement lépp loo xam ne war na cee fës rek ñu daal di koy nag euh, dugal bu ko defee résultat yi génn ñu daal leen koy jébbal laataa ñuy def seen situation du jour ci li aju nag ci résultat yooyu nag ñuy daal di nag rumandaat ci ab personnel médical hôpital bu euh, Fann ne ñu boobu ba léegi nag ñu ngi ciy dégg yenn ci ay rek euh, xibaar tontu bañ cay daal di nag indi mooy lépp daal di nag euh, leer nee na bépp résultat boo xam ne ci wàllu test la bu bàyyi ko foofu autorité yu ministère yi dañ cay daal di nag euh, taxaw te dafay am ay processus yoo xam ne daanaka fa lay daal nag jaar direction bi nag di wax ne mosul am rek ab transmission li nga xam ne ay résultat la ñu daal di ci deltu gannaaw la am mooy ab fiche boo xam ne dañ ko daal di joxoon ci jotoon ci personnel médical ngir ñu càmbar leen ba ñu gisee yëf nag. ñu xam ne euh, am na ay rëq-rëq yi ci daal di nag nekk ci la ñu daal di nag envoyé te nee ñu sax euh, courrier électronique la waa hôpital ba ngir rek ñu daal leen euh, defaraat yeneen yi nga xam ne xeetu renseignement la yu fiable booboo nag la ñuy soog a nag def test yi daal di nag amal confirmation ci résultat yi nga xam ne daal di nañ leen koy jébbal ci li aju ba tey sax ci wàllu nag chuche Covid 19 bi ñoom nag nee ñu lañ ci indi ci ay tontu ci lañu dégg ci presse bi nee ñu institut Pasteur bu Ndakaaru euh, mosula jot demande boo xam ne bu officiel la buy bàyyeekoo ci institut bu mu mën di doon ngir ñu daal di def ay euh, recherche wala rek jël ay euh, matuwaay ngir rek juge Covid 19 boobule direction bu institut Pasteur di feddali liggéeyam ak ministère bi ñu dénk wàllu nag santé ñuy wax itam ne lépp loo xam ne aju na ci seen i nag waa ref rawatina ci askan wi wopp Covid 19 bi tey la ñu gën a taxaw ngir wéy di ko taxaw. Euh, plan riposte bi aju ci wàllu nag 2 euh, juin bi ngir ñu daal di ubbi l'école yi ci ñi war a def examen euh, inspect inspection d'académie bu ndakaaru def na xayma nee na juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn l'école ay établissement public ak privé ak yeneen fukk ak juróom benn yoo xam ne ay formation professionnelle la yëpp dañ leen war a désinfecté waajal leen laata ubbite googule inspectrice d'académie bu ndakaaru bokkoon na tey jii ci ab ndaje bi ñu seqoon ak gouverneur ngir ñu daal di jël matuwaay contrôle bi contrôle bi di am fii ak ñaari fan ci weeru juin euh, inspectrice Hadijatou jallo ñu déglu ko ak Amadou Moustapha Dia. waaw dikk bi moom dafa ëpp suñu bopp ba feebar ni ndax euh, xam nga dakaar bokkul ak yeneen région yi am na ay région yoo xam ne duñu xale yi duñ jël bus duñ jël oto dañuy dox dem am na ci quelque am na ci ay région yu amul. coronavirus mais. waaw Hadijatou Diallo doon wax nag ci lim gi ci l'école yi waaye itam eh, li nga xam ne mooy matuwaay yi ñu war a jël laata contrôle bi ñu déglu ko ko Amadou Moustapha Dia. gouverneur bi nee na suñ plan bi baax na jaar na yoon e que. am na ay point yoo xam ne foog ñu taxaw ci mooy désinfecter école yi nga xam ne ne dinañ leen set setal ci balaa xale yi di ñëw mais tamit ñu xool périodicité bi ñaata yoon lañ koy war di def bu ñu toogee ñaata fan la ñu war a defaat loolu ndax xam nga feebar bi mu ngi fi donc euh, nee na 48 heures vers le 30 mai dinañ xool dem saytu ci école yépp xool ndax loolu def nañ ko. ñun fii ci académie de Dakar bi boo xoolee école publique yi 196 euh, la téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn nga dem ci école privée bi 560 la 560 la mooy. juróomi téeméer ak juróom benn fukk. du mm-hmm. noonu. Mm-hmm. léegi boo leen boolee mu nekk 756 public ak privé. nga dem ci enseignement euh, professionnel formation professionnelle. am na ñaari lycée technique yu mag. am nañ ña fukki centre ak ñeent. donc ci formation professionnelle bi am nañ. fukki euh, structure ak juróom-benn kon nag xam nga loolu lu takku la cent 756 le public privé ci enseignement général ak 16 ci kii xam nga loolu lu bari la waaye euh, gouverneur posé na ko fa service d'hygiène pour mu def ko dina métti ndax def ko sa euh, kii Dakar def ko Pikine waaye def ko Rufisque dina métti léegi dinañ xool ay stratégie pour volontaires yi nekk ci mairie yeeg yooyu yëpp ñu def ay formation ñu mën a jàppale ñu ci ci désinfecté mais quand même duñ dugg ci école yoo xam ne désinfecté wuñ ko mais ñun on inspection d'académie depuis le 22 avril alarba bu nekk onze heures ba treize heures damay def vidéoconférence avec les IEF def vidéoconférence bi avec les chefs d'établissement mooy proviseur de lycée fi mu ne nii sax plateforme bi ñu ngi koy defar pour que les directeurs de centre tamit ak lycée technique yi mu ñu mën leen jël pour ma mën a waxtaan ak ñoom def na ñeenti alarba yoo xam ne dañuy def visioconférence ci la ñuy waxtaanee nag problème yi ndax chef d'établissement yi ñu ngi toog problème yaa ngi ñuy wër il faut ñu wax te xam nga Dakar moo gën a compliqué lépp suba sax am nañ vidéoconférence ak ministre ñu daal di nag euh, dikk ci yenn ci mesures yu ñu daal di woyofal ngir daal di xeex euh, Covid 19 bi mbay askan wi ñu def seeni nag euh, l' activité secteur bu transport bi lañu ñu daal di nag gis joxe nañ ci seen xalaat waaye jàpp nañ ne boolewuñu leen ne ci li nga xam ne mooy dogal yu mujj yi foofa ca Liberté 6 bu bokk loolu mooy seeni gis-gis bi ci des nag mooy li aju ci wàllu chauffeur yu bus tata yi ñoom ñuy wax ne yeneen yi jafe-jafe ñu ngi koy jànkoonteel li jëm ci sax ñàkk Kajoor Fatoumata Diallo dogal gi nguur gi jël ci wàllum dem ak dikk bi chauffeur yi taxi yi nekk fii ci rond point Liberté 6 ñoom nag rafetlu wuñu ko Lamine Ngom kenn la ci ñoom mu nekk chauffeuru taxi clando yi nga xam ne ñoo jógee Grand Yoff jëm ca Tëngéej nee nag balaa ñu doon jël bi la dogal dañ leen cee waroon a boole ñoom ñu yëngu ci wàllum dem ak dikk bi. parce que dañ leen ne ci kanam mën nga jël deux personnes chauffeur bi ak benn nit ci ginnaaw benn personne ngay jël ça ne da ngay xool li ngay def lan la. si ginnaaw ma foog ne deux moo fay nekk warul am dëkk ñaari ñaari ñaari élément rek moo koy doxal le service formel et l' informel informel mënoo koo développer sans pour autant les acteurs mënul ne. ñoom lu ko xam-xam ñun ñu nekk ci biir ñoo ko gën nag ca wet ga. yii moo nekk nag terminus tata yi mooy ligne 57 bi chauffeur bi ñu ko laajee mi ngi joxe xalaatam mu wax ni bus yu doyul ngir mën a yóbbu askan wi ca fa ñu jëm ca jamono ji nag ñu ngi jànkonteel ay situation yu métti métti. mënuñoo yóbbu doomu aadama yi comme yéen ngeen ko bëggee comme sénégalais ni ñu bëggee transport bi matul oto yu bëriwuñu noonu te taxaw bi noonu moo arrangé borom oto yi quoi parce oto yi bu ñu bëri woon yenn bëri yi loolu du am soxna si ñu fekk ko nag ci biir bis bi mu toog biñ ko laajee moom itam mi ngi xam ne nii place bu nekk benn nit moo fa waroon a toog ngi fàggandiku ci mbas mi ni muy lawee delluwaat ci benn nit benn place daal moo moo gën ci man waaw loolu laa gis daal benn benn benn place benn personne man moo a gën a rassuré daal. même su itamit kilifa yi jot nañ ay dogal ngir nag xaw a féexal ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum dem ak dikk bi ñoom nag jamono ji ñi ngi xam ne ni ñu ngi dund situation yi métti ci fàttali nag bi mbas mi tàmbalee ba léegi ci biir dëkk bi ñu ci ëpp ci ñoom seen salaire jotuñu ko. Euh, jotuñu ko fàttu mata ñu daal di nag euh, desandi ci impact boobu nga xam ne am na ko ci secteur transport dem na ba ci deux roues yi fédération nationale euh, dawalkatu taxi jakarta yi ci Sénégal ne ñu nag seen secteur ñu ngi xaarandi ba léegi ci jàppale bi bàyyi ko ci force Covid 19 te ji jàkkaarloo nañu taskatu xibaar yi ca Thiès ñaawlu nañu itam yéex-yéex yi am ci projet. tricycle bi nga xam ne nag 2018 euh, ba léegi euh, ñu ngi koy rumandaat Samba Kumba Samb nekk président fédération bi ñu déglu ko Babacar Ndaw ndax doomu aadama bi nga xam ne bii moo daan nuril boppam moo daan dundal boppam jëndal boppam Jakarta yàlla dema dema dema dema dem ba lu mel ni am ñu arrêté leen loolu doon na loo xam lu métti ci ñoom la te ku ci ne xam na ni maanaam li daan dundale seen njaboot seen Jakarta yi loolu dañu ko daan jëlee kon yaakaar naa loi bi mu woote woon en 2018 président de la république dafa war a war gestuwaat ñi nga xam ñoom ñooy conducteur moto Jakarta yi nga xam ñoo nekk biir Sénégal ma ciy interpellé nag le dégg jamono yi weesu mu tudd ci wàllu transport loo xam ne lu am solo la jëmee ko ci wàllu transport te ñu yaakaar ne ñun ñun ñi nga xam ne conducteur Jakarta yi nga xam ne ñoo nekk biir Sénégal te dëkk bu ci nekk ci ñun am na lu toll ay milliers de personnes yoo du transport war naa gëstu bu baax a baax a baax a baax a baax ñii di conducteur moto jakarta yi fédération bi nag li tax ñu lay wax loolu dañ cee woon di liggéey ki nga xam ne kii mooy ancien ministre de l' emploi ministre Ablaye Diop li ak moom ak ñun benn l' kon ma yaakaar ni lu mel noonu su amee ñuy dégg yeneen rumeur yoo xam ne dañuy dégg ni maanaam ñeneen ñu ngi ñëw di côtoyé ministre du transport ñun dañuy xaw a jaaxal ñu daal di nag euh, wéyandi ba tey ak li aju euh, ci aide alimentaire d'urgence bi ministre bi ñu dénk wàllu développement communautaire Mansour Faye demoon ca maatam ngir daal di amal ndorteelu séddale gi lu war a aju ci fanweer yi junni ak juróom benn téeméer rek fukk ak ñetti ci ay ménage euh, ci ñetti département yi nag nee na ranuru rek moo daal di nag matale la mu doon laaj ñaari département yi dinañu daal di négandiku Matam Abdourahmane Diène ndimbalu nguur gi nga xam ne askan wi diwaanu maatam yàgg nañ di ko séntu tey jii nekk séddale bi mun naa tàmbali gannaaw bi nga xam ne jëwriñ bii di Mansour Faye yegsi na fii ci diwaanu Matam. donc tey ji dañuy ñëw fii ci région maatam pour indi dund gi nga xam ni. président Macky Sall moo ko jagleel. képp koo xam ni borom njël nga. te nga nekk ci lu ñuy wax le registre national unique. yokk ci population bi nga xam ni. parce que xëy na dañoo liggéey. seen liggéey yàqu. wala ñu nekk population boo xam ni seen loxo. jotul seen ginnaaw région de Matam nag am na ci lu ci takku lu ëpp trente mille ménage pour la région de Matam. jëwriñ bii di man Mansour fay daal na yegg si fii ci diwaanu maatam ci digg njolloor ci noonu mu daal di am yenn ndimbal yi mu jox ñenn ci askan wi lee muy ay ndimbal loo xam ne jàppale na bu baax a baax yenn ci borom kër yi yu mel ni as caama. dëkk bi instant yi sonn nañu kenn liggéeyul ñu toog rek ba liggéey bu amee kay xewal ci ñun waaw loolu kay vraiment ñu sant yàlla ñu sant euh, président Macky Sall. ndax ndimbal li amal na la njëriñ yow. ci trop parce que instant yi tey dama waroon jënd kilo maalo wala ñaari kilo léegi bi amee li dama kontaan jiw léegi dama ko jënd saa yi dafa yàqu amuñu dara fu ñu nekk ni xanaa liggéey boo amee kay kontaan nag ñu ngi ko fas yéene jébal lu tolloo ko fanweeri junni borom kër yi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo si ñetti departement yi nekk fii ci diwaanu maatam wante bu ñu sukkandikoo si jëwriñ bii di Mansour Faye département Matam dong moom la ay mbiram Matam yeneen yi danañ xaaral fii i fan dañ commencé joxe fii non seulement au niveau de la commune de Matam parce que seen lépp mat na waaye dana dugg ci département bi su si dana ñëw fileeg ñaari fan ñetti fan tout plus pour département tam ak département Kanel waaye département Ranérou mbir mi mën na sëkk donc vraiment contentement lañ ci am parce que jafe-jafe amu ci wala jafe-jafe ju amu ci te dund bi egsi na ci vraiment anam nu mu gënee gaaw dañuy fàttali ni président ba mu koy lancé le 11 avril la woon tey jii ñu ngi ci maanaam le 18 mai maanaam à peu près cinq semaines jëwriñ bii di Mansour Faye xam ne na ni ndimbal danañ ko joxe balaa ayu bés bii di jeex ci bépp juwaan yu nekk fii ci Sénégal mu nekkoon Abdourahmane Diène ci Matam pour Sud FM. Abdourahmane Diène daal di dikk ci nag euh, directeur euh, bu sécurité publique commissaire divisionnaire Abdoul euh, Waboul Sall moom mi daal di samp commissaire divisionnaire ñi ma jéeju ca bopp commissariat urbain bu Bambey mu daal di fay wutu kii di Balla Fall Abdoul Abdoul Abdoul Waboul Sall moom nag daal di nay xamle ci xew-xew bu ñu doon jébbalante leng yi te defuñu nag benn xumbateef ne daal euh, amul benn cas boo xam ne daal signalé nañu ne euh, ñi liggéey ci wàllu police ci wàllu Covid 19 bi am na ko ko ca daal di am ba jamono jile waaye nag mu ngi daal di fàttali élément yu police yi ne daal nañu daal di gën a euh, bàyyi xel daal di aar seen bopp ci condition yu ñuy daal di amale seen i intervention ba ci sax ni ñuy interpeller mm-hmm. nit ñi wala seen condition yi ñuy daal di liggéeyee Jurbel Adama Ndiaye cérémonie biñ doon tàbb kii di ñiima jiiju ci boppu commissariat urbain bu Bambey doon na occasion ngir kii di directeur bi yore wàllu sécurité publique mu xool naka la ñooñu nga xamante ne ñooy alkaati yi tooge ci wàllu période pandémie Covid-19 commissaire divisionnaire Abdou Wahab Sall ne daal bi mbas mi dooree ba léegi amul benn alkaati bu nga xamante ne wopp bi laal na ko waaye teewul ñoom ay matuwaay jël nañ ko ngir nag fexe ba li nga xamante ne mooy euh, mbas mi du yegg si ci ñoom. man jotaguma officiellement benn confirmation. ay cas contact loolu terewul euh, ñu ngi jël suñuy ay matukaay matukaay ngir loolu bañ am. am na ay sensibilisation yu ñuy def chef de service yi ñu ngi def seen sensibilisation. am na ay dispositions yu ñu jël di joxe ay masques léegi am nañ masque euh, ay gants. joxe ay gel ay lave euh, ay lave main sans compter sensibilisation am nañ service communication boo xam ne day communiquer ak éléments yi ngir si wàllu pandémie am nañ médecin chef boo xam ne loolu mooy prise en charge par pandémie bi plus sensibilisation terewul nag man si biir tournée bi maa ngi leen soñ pour ñu gën a aar seen liggéey dafa laaj ñu gën a aar seen bopp parce que war nañ population yi war nañ def maintien de war nañ téye nit war nañ ko yóbbu garde à vue war nañ ko ak yu mel noonu bu nit defee résistance nga war ko interpeller bu defee résistance da nga koy jàpp waaye nag terewul aussi ne am nañ yeneen euh, méthode yoo xam ne bu fekkee ne am nañ problème pour interpeller yu mel noonu dañuy def appel à à des spécialistes SAMU national a ngi fi euh, service d'hygiène a ngi ak yeneen équipe médicale yoo xam ne mën nañ jël seen disposition seen matukaay ndax ñu jàppale ñu si premier secours bi ndax ñu mën a ñëw en deuxième phase. ki nga xamante ne mooy commissaire bu bees bi di madame Gnima Diédhiou tàllal na loxo askan wi nga xamante ne moo nekk Bambey ngir ñu jàppale ko ci liggéey bi. porte police tout le temps dañ koy ubbi ba pare également joxe renseignement ne veut pas dire que da ngay feeñ ndax tamit ku joxe renseignement tamit sa bopp nga aar ku ñu jàppale ci renseignement rek suñu intervention dafay efficace. moo tax ñuy ñaan bépp population Bambey. lépp li nga xamante ne mën nga si mën a jàppale police rek nga rapproché ci police nga baaxee ko ko ndaxte boo ko baaxee sa sécurité nga assuré. lu ko jiitu nag directeur de la sécurité publique Abdou Wahab Sall installé na commissaire Alassane ñaan ci boppu commissariat centrale bu Njaareem mu wutu fa commissaire Ousmane Diédiou Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama ñu daal di desandi ba tey ci mim réew ak la ñuy xeex wàllu coronavirus bi teewul nag am na yeneen yu ci rax ndax ay sàcckatu jur daanaka euh, lëmbe nañu foofu ca Cilmaxo Mbakol euh, donte couvre-feu bi am na ak nag li aju ci wàllu état d'urgence bi askan wa nag daal di ciy tàyyi ba sax jamono ji ñu ngi wut wàllu Babacar Sow. jamono jii nga xamee ni réewum Sénégal mi ngi xeex ak coronavirus ngir génn ko réew mi sàcc seeg sàmba boy si ñi ngi def lu leen neex ca cilma xambakol te dara fekku leen ci donte sax ci jamonoy couvre-feu la ñu nekk ci gox boobee doo toog ay bés yoo xam ni njombe amu fa ci wàllum càcc bi ci mujj moo di barki démboo njaay ñaari béréb ñuy jaay yi gën a mag ñu nemmeeku ci ab boutique de transfert ci wàllum xaalis sàcc yi dem nañ fa toj ko jël fa xaalis bu takku ak ay jumtuwaay suñu ci boole sàccum jur gi nga xamee ni lu toll ci junniy mala sàcc nañ leen ci at yi weesu di loo xam ne lii mënatuñ koo dund suñu sukkandikoo ci Sayer Ndaw secretaire municipal bu mairie bu Cilmaxa dañu nemmeeku daal jamono yi Cilmaxa moom saay-saay si dañ fiy def ay ñaawte fi ñaari bitig bu gën a mag ak point de transfert d'argent bu gën a mag song nañ leen yóbbu xaalis ak ay bagages yu bëri loolu nag dañ koy boole sax ak sàcc gu metti parce que diggante 2009 ak léegi lu mat junni tête de bétail maanaam junni xar ak bëy jël nañ leen fi te ba léegi ba sànq kenn mënu fexe ba teg si ñoom loxo. donte sax Cilmaxa am na post de gendarmerie waaye day taxul càcc gi wàññeeku suñu ne meekoo ni effectif bu doy amul fa rawatina ab ndaamar boo xam ni dina mën a tax ñu gaawal intervention yi Cilmaxa dib dëkk boo xam ni ñi ngi ñaan nguurug Sénégal bu gaaw daal di def poste bi brigade waaye itam andi fa effectif bu doy sayer ndaw Kilmaxa am na naam poste de gendarmerie waa bu dépendre ci brigade Pekes waaye amuñu effectif yu doy amuñu matériel bu doy pour man def ay intervention moo tax ñuy ñaan nguur gi mu jàppale ñu ak gendarmerie nationale ba ñu def Kilmaxa mu nekk brigade yokk effectif yi yokk leen matériel ndax Kilmaxa dafa def frontière ak juróom-ñeenti commune te commune bu nekk la ñu defal frontière donc day yomb nit ñi fu nekk lu ñu mën jaar pour def ñaawteef yooyu Tivaouane Babacar Sow dañu cee jóg ak yéen Babacar ay fan ñuy waajal lu aju nag ci njeextalu koor gi feetab korite gi eh, askan wi wala ménage yu bari nag jamono ji waajalaguñu ko nañ ko daan amee at yi ñu wees ndax kiris bi nga xam ne am na ci wàllu nag eh, santé bi jamono jile boole ko contexte boo xam ne wàllu koom-koom gi daanaka eh, taxu ko ni demee dépense yu bari daanaka dañ ko daal di seetaat gëstu geeg Josette Kali ni ñuy moytoo mbas mi mooy xalaat bu njëkk ci yile waajur boobu situation tax na Ndiaye jëm ci feetub korité yile ménage fas yéene wu ñu def dara ba mu ëpp li ñu daan nemmeeku at yi ñu weesu. ni ñu ko doon waajalee moo gënoon am solo. te ren xam nga rek ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey korité bu naqari bi musul am dëkk bi doxul dëgër na xaalis amul par rapport ak yeneen année yi xam naa ne ça donc euh, peut un jour euh, comme yeneen jour yi ñu koy kii rek mais du nekk comme korité yi fi daan am nga xam ne da ngay dem ànd xale yi wutal leen ay yére et cetera donc mais actuellement non looloo tax fi mu toll nii ni ñu koy waajalee daal ci jamono goo xamante ni koom-koom gi dafa métti yenn ci ay produits chers looloo tax ñuy xam ne ni dépense yi dina wàññeeku bu ndax lépp ñu mën kaa def fa ci tekk ak tey te it yemale ko ci kër gi dong. là vraiment dinañ ko feete nag mais en famille. donc nu mu gën a simple daal. ci tekk ak tey donc am na yoo xam ne moment bi kii wu ci daal. dina am différence heure yi doon na fekk nga nekk di xotti jënd daal nekk di létt ak yooyu mais ren loolu amul daal. dépense du demee noonu comme auparavant auparavant day neex da ngay jënd lu nekk tout tout tout mais ren c'est pas bon. en ce qui me concerne moom mënutuma ko def. parce que ñu ngi xalaat leneen mais pas yenn dépense yi xale yi am nañ déjà ay yére yooyu donc mën nañ ko sol man aussi la même chose rester à la maison. dañuy wàññi bu ñuy préparer dañuy sóoraale koñ bi mais ren du am ku ci nekk sa kër rek ngay toog donc repas de famille rek. waaye donte jafe-jafe yooyu yëpp dina si am monsieur Fall moom mu ngi xam le ni dina def lépp ngir bégal ay doomam. ñun Sénégal loolu la ñu xam fête Korité Tabaski Noël dañuy bégal suñuy doom mais avec les moyens de bord bégal leen rek dafa baax ñun moom waxuñu suñu bopp. ay fan dong te ñu ñoom amalaguñu benn préparatif euh, jëm ci boobee fête fête googee nga xamante ni fas yéene nañ ko yemale ci seen biir kër yi ndax jafe-jafe yi laale ak koom gi wala it concept bii ñu juppee restez chez <laughs> Ah, ci la moo ñu yóbbu fële ca diwaanu Thiès foofee nag bëgg nañu li nga xam ne moo lëkkale askan wu senegal bañ deñ ay gëstukat chercheur ak ñi nga xam ne daal ah, jokkalante diggante xeet daal nekk na loo xam ne ñu ngi koy bàyyi xel ne ñëw bu ñu moyul li nga xam ne nag ah, mooy cëslaay wala mooy dëgëral unité nationale bi réew mi amee mën na daal di nag yolom mouvement boobu di KDP tey jii daal di na ci rek addu di artu askan wi ngir rek loolu ñu daal di koy bàyyi xel Thiès Babacar ñu duppee kisal Dayirde Pulaagu am njaqare waaye tiitaange si ñenn yoo xamante ne mais si kàddu yi ñu yëkkati. waaw ci fan yi passé dégg nañu fi ay wax ñuy def ay politique ñuy wax ñoo xamante ne dañu yore ay émission rajo ñuy wax loo xamante ne méngoowul ak sart réew mi ci wàllu langue réew mi. seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñoom jàpp nañ ne Sénégal réew jàmm la jàpp nañ ne tey ji ñëpp benn lañu waaye bu ñuy nemmeeku ne ay politiciens ba si bu mujj bi génnub leaderu Pastef Ousmane Sonko. naqari leen Ousmane